Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yeen kilifa yi nga xamni da ngeen di faral di dugg ci seen sëyu njabot ma bëgg a ñëw tuuti waxtaan ak yeen mo xam nag kilifa yi ku goor ki la nga xamni moy borom kër wala muy jëkër wala ñuy kilifa yi soxna ci nga xamni moy soxna léeg ngeen yàq kenn du mëna jubanti seen yu yaq ndax da ngeen di top seen kilifteef ba dugg ci digënté ñaar ñu bëggante. te sëyu ay doom li ci yàlla sédd way jur yu bariwul te léeg-léeg sa soxna si dafa réew wala sa soxna si dafa xamadi wala du ma toggal wala du ma nangam da ngeen ciy bëgg a appuyé wu ba yàq ay sëy lool bariwaa ne tey kun fase koo xam si yaayu borom këram képp tax ñu fase ko waaye sëy na sëy bu rafet daa jubóowul ak moom wala bariwaa na tey koo xam ne fase nañ ko te bàyyi borom këram moo taxaw ni ko fase ko loola nag du ak maandu dëkk bu nekk ak ni muy demee nag bay na sëy yu tas yoo xam ne bu doon soxna sa ak borom këram dong ñoo nekk seen kër sëy ba tas waaye mbokk yaa ca wàll si ba ci njëkk yi sax dañuy wàccu lu soxna soxnaam si dafa xamadi dafa réew léeg nga am ak sa soxna jafe-jafe kilifa jot ci ni la yabal ko mu dem kër ndeyam ak kër baayam déglu ma ba ma noppi nga déglu ko moom kilifa gi moom am na soxna su koy wettali di ko tegal ndekk ak yëpp waaye yow doom ji moom yaa ngi topp ndigal déglu ko mu mel ne dalaa fàtte saa buñ ko soññee mu ne bàyyi ko foofu rek bàyyi fa xale ba ba li ëpp sëy ba day mujjee yàqu te doom ji moom su dee fii ni kilifteef du demee du mën a ñëw ci baay bi naan ko ah sama soxna sa kat waxaatoo ci dara wala yooyu day bàyyi noonu rek jigéen ji itam léeg-léeg mu mer dem seen kër wala mu woote seen kër téléphone ñu ni ko ñibbisil jëlal bagage yi nga ñëw mu ñëw jël bagage yi ñëw toog ci kër ga yaakaar ne da ngeen di régler sëy bi ngeen jàll ci leneen fàtte ko kenn du ko sañ a mayewaat soxna si la mu ngi ci buum du sañ a génn nekk ci boppam ndax dafa ne ci buum te gisul ki muy sëyal kilifa yi toog su ko defee kenn ko ne naan maa ngi toog ba ay kilifaam ñëw kilifa yi tamit ni duñ fa bu fa dem bu ko yéen nag kilifa yu bari yéen a ngi fooyee sëy est-ce que yéen xam ngeen kóol rek sunu borom googu di buumu sëy nan la toll ci sunu borom képp koo xam ne sunu borom dogal na nga am kilifteef ci ab sëy da nga cee war a taxaw ba noppi taxaw gi dafa war a gaaw ndax mbiru soxna ak borom kër xejale len ñom ñaar moy takale len ki nek bërëb ki nek bërëb loolu ko am xam-xam du ko def ta defare mana nek ay ngay gis ko xam ci kilifa goo day jaay lima ma digg mu wax ko fi lima ma digg mu tontu ko sa ndey ji bu mu tega tankam ci kër gi te fekk mën ta fase ab sey xamoni ku jigen ki mën ta tas ab sey ci lu dul arat bàyyi ku gor gi ta tas ab sey ci lu dul arat ken mënu ci tas ab sey waaye léegi da ngay gis ko xam ci da ngay wacc sa bàyyi ne la sa soxna bàyyee dëgër fit fase naa soxna si nee ko demal ci biti soo demee ah papa lu mu def wala bàyyi lu mu def fii la nekk di tonton te kii ma wax mu may mu may delloo baat man ko sa borom kër ñëwee ko fase naa fekk mun koo fase ndax moom soxnaam la man a fase yaayi xale bu góor bii nga mën a fase yow waaye yaa ngi ko téye téye léegi ci suba rek raxasal na la sa gura raxasal la say tànk lemal la sa mbàjj nga fase sa <laughs> nga fase sa soxna si doom mu dem ku ko def ku nek di nga ko layeg sunu borom moy fasa sa doomi soxna ndax dafa bokul ci prerogative yi diine may bay. wala mu may ko kilifa may ko ab serigne may ko imam may ko kenn moy fase naa sa soxna si bi duni arab Hanga nga bakri sidiq abdullahi ibnu abou bakri moo takoon atika atika dafa nekkon jigen ju rafet ba nopi yow am ta am am am taar am éloquence maam mën a wax mën a way jonge ba noppi am bayre nag am bayre góor loolu sax euh, Abdullah ibn Abubakar bi mu ko dencee Atika dafa mën néeg dafa bokk ci jigéen ñi nga xam dañoo mën néeg daanaka nag tax génnatul ci biti Abubakrin moom li ko jaaxal ci Abubakrin Siddiq li ko ci Abdullah mooy jàpp na soxnaam si nob na ko lool man daal xam naa ni saa boo ko wooyee ci biir néeg bi lay wuyoo xam naa moom soxnaam ci gañe na ko ba tax na sax ñun aqi wéyjur sax amatuñ ko ci moom fiir mel ne daal fiir da ko dugg rek ci ni atika mel nga xam ne atika moom suñ toogee tuuti rek gis mu romb ak ànd nis tuuti mu rombaat ak lu sedd nis lu tàng ne ci biir néeg bi ba Abdullahi ibnu am sax am jotu génn Abu Bakr ni ah sama aq ñëw nag taxaw ci bunt néeg bi nag ni ñu ko Abdullahi ñu <laughs> ko naam mu ne ko ah sama àq nag soxna si moom na la trop waaw sa soxna si moom na la trop mu ko ah man daal bàyyi xamal ne ci jàmm rek laa nekk wax dëgg yàlla ndax lu bari lu ma daan sànni ci ay waxtu ci biti sànneetuma ko ci sànneetuma ko ci biti maa ngi toog yor sama soxna te maa ngi góorgóorlu waaye fam ko jaaree mooy benn bis la ñëw ni ko ni julli ji ba ñëw fekk kii na ko ni ko Abdoulaye Abdoulaye ibnu Aboubacry nuyu Aboubacry ni ko da julli ji mu ne ko waa jiitu ma <laughs> Aboubacry julli ji ba ñëw ni da ngaa aju demul aju ma ko julli naa ci kër gi mu ne ko nag sa soxna si ngi bëgg dox sa digganteeg yàlla wàcc ko wàcc ko ah mu wàcc ko ndax digalal way jur ni ko giñ naa ci aqi njureel wàcc ko mu Abubakar Siddiq waaw waaye ba ko wàccee nag ginnaaw néegam ak néegu Abubakar ñoo sësoo daa sadd ay woy di woy aatika la ansaka ma zara ومعناها قمري ومعناها ومعناها حمري الحمام المطوق لها منطق جذل ورأي ومنسب وقلق سوي في الحياء ومصدق فلم أرى مثلي طلق, طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء يطلق دي وي دي وي دي وي يقعد دي جامبر لا أبو بكر سيدنا نيجي دي قدر يا عبد الله يقول راجعه وي mooy سيكو xam naa ne daal ko yebu balaak moom rek mu dellu si ko nag Aboubacar xam ne nag euh, Abdullahi mi xawoon naa gëlëm Aboubacar mi may ko ab tool ba tool bi maa ko masawoo ca saasa rek li mu def waaw waaw waaye ba ko Aboubacar Siddiq ne delloo si ko da caa mbig-mbig mu tollook dafa woo benn xale bu tolloon bu tudd Ayman nga xam ne ab jaam la woon ni ko goreel naa la tey ngir jëmmi yàlla ju tedd ji ak delloo gi ñu ma delloo sama soxna li ma ci jublu rek ngir wax léeg-léeg soxna mën naa toll fu sori ci borom këram borom kër tam mën naa toll fu sori ci soxnaam kilifa yi dugg ci ñoom amuñu ci benn pression ndax tey kenn ku nekk ñoom ma ngay wétli koon wala bu dee yaay ma ngay wétli ko eh, borom këram ba noppi soxnaam si yi nag moom ngeen teekoo sëy wala borom kër bi ngeen dox digganteem ak soxnaam sëy naxante la rawatina sëyu gano yi ndax bu ngeen seetloo bu njëkk kenn mësta may ñemee maye jigéen lu dul dafa fendi lool mooy am fanweeri at ñeent fukki boo xoolee sëy yu bari loolu la woon léegi nag jamono dafa soppikuwaat ba jigéen day teel a dem kër xale bi 18 ans ku ko takk faaw nga nekk ku mën a muñ ndax danga nga koo fekk mu toll foo xam ni jamonoom la day doog a toll ci jamonoom dugg ci buntu àddinaam bu du woon ni nga ko takk daanaka day day day day day fly day dox day dox doxam day dund dundam xol bi day bëgg kenn du ko yilif mu féex far ci boobu diggante ñu jël ko may la ko kon xamal ni dañ laa may koy naaw li nga war a def mooy fexe koo mën a controler waaye muñ ay bang-bangam waaw ay caprice am da koy jéem a muñ kon jigéen ma mas a dégg ko wax ni ku nanguwul a dégg sa jànq bu réew bi doo doo mas a dégg sa jeeg bu baax bi ndax jigéen da koy yor ba muy jafe yor mooy ba muy nekk ndaw di bañantu dese doole dese taar yëngatu nga téye ko di ko muñal ne ko néewuma lu wax nga d'accord ci waaye naxante la rek del naxante léeg-léeg nga napp ko sa yi ngay def moom boo tuut bu dee bëgg ma de moom te bañ maa ñàkk yi bu yoboo nga bàyyi ko léeg nga neexal nekk ci rek waaye kilifa yi moom buñ ci dugg see rek sa sa sox sa jabar ji dafa réew waaw na dem togg ci kër ndeyam ak kër baayam su ko defee yow boo xam si mënoo xëtti kilifa yi ne ah jubawul ak sama yaay xuloo guddi xuloo bëccëg moo ma bàyyi ko waaye bëgg naa ko li may wax ni ay nit a ngi koy dund ba léegi am na ñoo xam si tey seen soxnaa ngi seen i kër te seen papa leen wax ne bàyyi leen ko fa bu leen ko jëlee ba te moom papa ji jiimu ci dara loolu nag du diine loolu du diine euh, ni alxuraan waxoon ne wa in imraatun xaafat min baaliha nufuusan aw i'raadan bu dee jigéen dafa am diggante ak borom këram la gën mooy ñu defaree diggante bi defaree moo gën waaye am na kilifa yoo xam si tas ab sëy moom tasagul nañ la ëpp fukki sëy ak leen tàggu rek ñun la dafa reewu fase ko la fase ko te loolu kilifa waru koo doxee kilifa dafa war di bu ay diggante amee nga woo leen ñu ñëw ñoom ñaar boo laajee xam ni bëggante nañ taxawal ci delloowaat leen ñu sëy loolu la sunu boroom bëgg jigéen ju fay itam moog borom këram ñu dem waxtaan ba juboo ñëw wa bonalatihinna ahaqu bi raddihinna góor dong moo am kattanuk delloo si soxnaam maanaam ni sama soxna delloo si waat naa ko waaye bu demee di ko fayli nga gis mbokk yi ni ko duñ la mayuñu la dara duñ la ko duñ la ko joxaat fekk amu leen ci droit loolu kenn amu ci droit kaddu yooyu ngeen di wax noonu mënta tee soxna si dellu nit mu ñëwee ni delloo leen ma sama soxna bu fekkoon xaad yi bi ni ko du ko delloo ndax moo daa fay dem dafa mer ci biir ay daam te fekk idda ji jeexagul par force dañ ko ko war a delloo te léegi da gis loolu day am bàyyi taxaw opposé ak wéyjur yi ni soxna si du delluwaat yëpp ak la